Euh, indi ci wàllu koom nekk na li nga xamante ne lu bari la donc bu ñu gisee loo xamante ne tey mën na leen impacter ñun dinañ def constat bi indi ko donc nag euh, la dernière chose comme ni ñu koy waxee revient toujours à l'État euh, moom moo war a tey peut-être xool ay pexe yi nga xamante ne dina ko def ngir rek dooleel le secteur informel maanaam bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di les tailleurs les menuisiers et autres et il faut rappeler que ñooñ nag ñu ci gën a bëri ci ñoom ñooy joxe ay ay góorgóorlu lañ maanaam vraiment ay nit ñu am jom yi nga xamante ne euh, tey jii euh, il assure la dépense quotidienne donc loolu bu amee tey asma bu doon fay ñaw cinq mille di ko fay dix mille loolu mën na ko décourager bala la mu doon ñawlu sax dootul bëri donc mhm. le tailleur va se retrouver finalement euh, sans travail ak charge yi nga xamante ne da koy xaar le sénégalais lambda bi nga xamante ne dafa war a jënd produit fini avec beaucoup d'argent alors que facture courant bi à côté mu ngi koy xaar war si payer encore beaucoup d'argent alors que saleeram am demeewul noonu voilà loolu itam je pense que euh, ñi ñu ñi ŋànk réew mi war nañ ci bàyyi xel gën a yërëm askan wi donc lii lañ leen indiloon tey asma comme wax nga waxu salaire moom foog nga wax tamit si waxu appartement yu cher yi <laughs> loolu moom faut que tu reviennes là-dessus vrai c'est vrai c'est vrai surtout rax ci que léegi dañuy bañ di louer sénégalais yi. duñu louer ci sénégalais donc bu ma ne frustration mu ngi ci secteur bu nekk c'est extraordinaire. loolu yaakaar naa ne dinañ ci ñëw mm-hmm. plan bi mm-hmm. yaa ngi indi donc on va faire l'économie de l'économie incha allah. Mm-hmm. ce sera du mardi mardi jeudi ak samedi yëpp dinañ tous les jours que tu traiteras l'économie faible du Sénégal. on n'a pas une économie forte elle est faible donc tous les jours. on sera non non non dañu wax Sénégal dañuy bàyyi garaaw la kaf. dëgg bi on est dans un guépier inimaginable c'est-à-dire est-ce que vous vous rendez compte il faut benn moment ñu taxaw jël ñu natt comme ni ngay jëlee thermomètre. ñu ñu wax hôpitaux yépp ak nit ñi ci dëkk bi ñu wax ñu ñaata sénégalais ñooy ñàkk seen bakkan par jour. effectivement effectivement euh, loolu moom. pour mën a mesurer le drame qu'on est en train de vivre et, et malheureusement on a des autorités. mais qui nom de Dieu qui semble presque s'en foutre entre guillemets bale ma wax bi ñoom ñoo ngi ci nee nañu ñoom ils sont en chercher des formes peut-être que la forme laisse à à à désirer mais n'oublions pas que il y a des travails qui sont abattus ici de jour en jour n'oublions pas Sénélec qui se trouve à milliards et qui veut nous dire ñun sénégalais ñu jox ko 12 milliards yi et l'État qui lui moom nous dit que man dinaa tabax stade 150 milliards après je vais mais c'est pas sérieux En tout cas, ceci, son constat est am na ñu mu ci bokkal xalaat on salue au passage Jacob Negri internaute bu am solo la mi ngi lay béy yëpp. Jacob ah <laughs> coucou à toi <laughs> vraiment. voilà Kalidou au passage euh, Asmalik Mbaye nee na. Hmm. bàyyil tooñ boutique yi yaa ngi leen di tooñ ñoom boutique yi. <laughs> non damay kii nii rek xumbal waxtaan. yaa ngi leen di draay daf leen di draay leen mënuñu leen fay internaute ya vraiment seen critique c'est important ah. effectivement positif bien sûr. voilà donc Binta di la jaajëfal bu baax a di jaajëfal di leen jox. Euh, rendez-vous jeudi incha allah. alors à dañuy euh, woyal rek en compagnie de Louise Adjandi elle embellit ce plateau et tey mu fas yéene ñoo waxtaanal eyeliner Louise nuyu naa la. maa ngi lay fay euh, Asma. non je fais attention quand je dis ton nom. ah oui ah, ah, sinon tout le ah, plateau ah, va Salma. Asma Khadija. <laughs> Asma Khadija euh, maa ngi leen di nga xamante ñoo ñu seetaan te euh, yàkkamti se rubrique euh, beauté tey nag dinañ wax euh, si maquillage dinañ laal tuuti si accessoire comme ni ma def soxna Yacine Ndele. ah oui magnifique. tout à l'heure je m'étais maquillée d'accord mais il a fallu que tu me mettes ces magnifiques petites que tu ressembles à bi maa ngi mel ni Kylie Jenner <laughs> voilà donc ce sera tout de suite votre rubrique beauté en compagnie de Louisa Diandi. play at www.mikeys.com. ci li ñu jot a junju da ngay waxtaanee li nga xamante ni mooy eyeliner avec les accessoires de cheveux. c'est bien ça oui oui alors euh, accessoire yi indi nii rek parce que comme c'est à la mode te dama doon xool euh, tey ban yére laay sañsee ma gis ne te loolu damay def ay recherche ma gis ne euh, si léegi def greffage rek peut-être xew na tuuti mais yokk si accessoire du si dara mais bala boobu dañuy wax tuuti si trait d'eyeliner ki nga xamante ne day agrandir regard bi ci séduction la bokk maquillage pour man maquillage tout est question de séduction en maquillage léegi dinañ dem xooli benn élément juste comment tracer euh, trait d'eyeliner comment le réussir plutôt et que boo ko tracé bu jàllul aussi nooy def pour nu mu tuddati reprendre aussi forme bi bu dee élément bi disponible na nu ñu xool ko mu commenter ko en même temps ci nga xamante ne explication yi dina gën a yomb. Pour tracer son trait d'eyeliner, j'ai utilisé un pinceau. léegi bi ñu ko tracé ba pare à chaque fois di gis ne peut-être euh, trait bi dafay euh, mën na dëng après à l'aide d'un pinceau biseauté c'est comme ça euh, qu'on appelle ça tu prends ton fond de temps et tu effaces euh, la partie euh, ratée nga effacé ko après tu euh, voilà mu ngi nii comme ça mën nga di tracé comme Yacine ni muy tracé nii mm-hmm. faussé ko ni affaire bi dem gauche dem droite <laughs> Ilada <laughs> nga <laughs> léegi nga jël sa pinceau nga jël sa pinceau nga jël un peu de matière euh, ton pinceau biseauté nga jël sa fond de teint mën na nekk sa fond de teint comme ça nga tu effaces tu la forme que tu veux en fait tu passes si nga xamante ne côté bi nga xamante ne mooy côté bi rate bi léegi tu voilà tu tu tu effaces en fait euh, la partie euh, ratée. Ouais, exactement exactement <laughs> c'est vrai qu'il faut être très, très pointu sur euh, euh ni ngi koy defee donc voilà c'est très simple hein euh, voilà le rendu après bu la neexee nga tu prends la peine de prendre encore un peu de produit nga tracer pour génne forme bi alors bii forme bi c'est c'est suivant c'est suivant nit ki nu ko neexee en fait mu ngi noonu nga effacer li nga xamante ne moom moo moom moo raté à l'aide euh, d'une lingette et après tu prends ton euh, pinceau nga commencer def sa fond de teint c'est aussi simple que ça c'est pas c'est non non c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais est-ce qu'il faut différents traits d'eyeliner ça dépend des euh, formes de visage hein absolument absolument et forme du visage et plutôt euh, si say bët si okay. tu as quand même boo amee bët comme asthma euh, trait d'eyeliner mun na bañ a mun na bañ a génn mun na bañ a dijj hmm. parce que le trait d'eyeliner agrandit en fait euh, l'œil et day ça fait sortir le le le regard en fait donc du coup. tu lan mooy eyeliner. Euh, alors eyeliner ñu ngi ko doon ràññee bu njëkk ba. ñu de eyeliner la ñuy wax. <laughs> eyeliner eyeliner alors line line c'est juste c'est juste c'est juste une ligne en fait c'est juste une ligne. et eyes euh, en anglais c'est voilà c'est les bu njëkk ba dañ doon wax que ne pharaon yi euh, Égypte temps Égypte ñoo ko doon utiliser pour pour am lu ñu doon séntu en fait. <laughs> waaw mi doon séntu waaw am na <laughs> lu ñu doon séntu. lu ñëwagul ba tey <laughs> donc du ci égyptiens yi la jógee léegi nag fur et ñuy dem maquillage di évoluer léegi ci la ko euh, occidentaux yi euh, copier léegi bu njëkk ba dañ naan da nga daan jël sa sa crayon noir rek. sa crayon noir tukki jàmm am na dañ ko doon wooyee sax tusngal de. tukki jàmm. waaw tusngal waaw. tukki jàmm waaw tusngal. xam nga lu tax ma ne tukki jàmm. Mhm. tu viens de confirmer la thèse de Cheikh Anta Diop selon laquelle on est le berceau de l'humanité et que tout est parti du Nil fële ca nit ñu ñuul ñi Égypte ba ñoom ñu copier maquillage comme ñoom seen philosophe yu mag yi nañu sàccee woon xam-xam yóbbu daal ne ñoom ñoo xam mais dëgg la merci <laughs> mais même les blancs commencent à reconnaître cela hein. Ils mmh. commencent à reconnaître que la civilisation. Mmh. parce que xam nga bu ñu jaawalee tubaab bi démb yi maamu tubaab bi tey. bu ñu leen jaawale ndaxte aussi am na ñoo xam ne dañuy reconnaître ni que la civilisation vient de l'Afrique mm. et de l'Égypte mm, mm, donc euh, ñu ngi bëgg gëm ni que sax les Égyptiens jadis étaient noirs étaient noirs il y a des reportages maintenant dessus machallah ils évoluent aussi <coughs> en bien Lisa ñu may na nga poursuivre. donc du coup fa la euh, fa la fa la origine am nekk léegi ci par la suite la ko occidentaux yi coupé euh, copier et que plus ñuy dem plus aussi maquillage di évoluer mhm. léegi bu njëkk ba da nga doon jël juste sa maquillage dañ ko doon def sax sa crayon noir nga tracé après nga jël sa loxo nga def ni pouce mu xëcc tuuti mais léegi plus ñuy dem ak euh, technologie beeg ak. de tout ce qui est diversité si maquillage bi tout il y plusieurs types de de pour ñi nga xamante ne c'est des débutants am na eyeliner yoo xam ne comme stylo la la mel. Mm-hmm. bu dee ñi nga xamante ne c'est des professionnels mun nga utiliser pâte bi wala euh, embout bi nga xamante ne dafa sew donc du coup voilà euh, c'est c'est vraiment à